la nga xam ne moo ko wund journal bi di réew mi quotidien xëy na di ñu ko leeralal nee na dañuy dajale réew yi nga xam ne ñoo nekk ci dëndu Afrique ñu bokk benn programme ngir nag développement Afrique ngir ñu xool benn côté ngir nag ñuy xàccandoo di dóorandoo ak xool xaalis bi nga xam ne moom lañ leen di financé ana nan la ñu koy jëfandikoo yéen a kaay gi di réew mi quotidien ak le soleil nee na ñi nga xam ne ñuy waa banque mondiale ñoom lu toll ci 93 milliards yoo xam ne pare nañu ngir génne ko yéen a kaay gi du l'observateur ak réew mi quotidien nee na ndaje ngi ko doon amal fi nga xam ne mooy King Fahd Palace ndaje man naroon naa yàqu ndax nag li nga xam ne moo ko naroon a yàq mooy coupure dañoo dem ba ci digg ba courant bi daal di coupé te boobi nag bëri na ay chef d'état africain yoo xam ne ñoo ngi toog waa banque mondiale ñoo ngi toog waa FMI ñoo ngi toog courant bi jekk-jekk daal di coupé mu lëndëm këriis lëndëm këriis chef d'état yi ñoom seen bopp gisante wuñ ñi nga xam ne ñooy waa banque mondiale ak waa FMI kenn gisul sa morom saal bi lëndëm ba maara a tale loolee nag tax na njiitu réew mi di président Macky Sall démb dafa mer ba maara day tale Macky Sall nag mer na jamono ji nga xam ne moom la courant di coupé jamono joojee directeur bu banque mondiale moo doon wax ab discours am waaye nag bi muy wax ab discours am di wax ci lu jëm ci wàllum courant wàllum énergie jamono joojee ci la courant bi daal di coupé mbir mi lëndam Macky Sall nag mer ba maara de tale Macky Sall mer na yéen a kaay gi ne na Macky Sall ci boppam dafa yëkkatay kàddu ne nag lii nga xamante ne moo am lii mënuñu koo seetaanee nii il faut que ay daan lalu ci ndoddul ñi nga xamante ni ñoo deful seen liggéey yorin wi nga xam ne moom la ñu yoree hôtel bi dara baaxu ci yéen président Macky Sall ci kanamu chef d'état waa FMI ak waa banque mondiale nee na leen sama téléphone dama koo yëre wut ci sama loxo waaye su ma ko yore woon sama loxo ni ga ni composé naa bu yàgg yàgg woo directeur général bu Senelec Pape Demba Bitèye ci yéen a kaay gi di Vox Populi Pape Demba Bitèye moom ci boppam jël na ay daan yu métte métte lal ko ci ndoddul yu bare bari yoo xam ne dàq nañu leen directeur bi ñu denk wàllum réseau Pape Demba Bitèye dàq na ko directeur bi ñu dénk wàllum équipement Pape Demba Bitèye dàq na ko directeur bi ñu denk wàllum exploitation Pape Demba Bitèye dàq na ko directeur bi ñu dénk wàllum distribution Pape Demba Biteye dàq na ko ki nga xam ne mooy chef département protection Pape Demba Biteye dàq na ko yéen a kaay gi nee na nag li nga xam ne moo si des ñi nga xam ne ñooy liggéeyee ci hôtel King Fahd Palace ak ñi nga xam ne ñoom lañ ko dénk ndax lan moo tax bi courant bi coupé groupe électrogène yi doxul normalement jërële bi loolee ab laaj la ay daan munu faa ñàkk yéen a kaay gi di réew ko di cee bàyyi mbir moomee nag wax ci li tey yàpp jamono ji ñoom seeni mbir ma ngi dox good fine yéene kaay gi di Sud Quotidien nee na tabaski ren gi ci ndakaaru daal xaru VIP yi si gis xar yi nga xam ne dafa cher ba maara détaal nee ma xaru VIP xaru ñi nga xam ne dañoo am xaalis ñi nga xam ne na ñooy góor góorgóorlu yi ñooñee na xaru coggal yi la ñu doon xaara xaru coggal yi góorgóorlu yi ñi nga xam ne seen loxo judul seen ginnaaw at mu jot daal bu tabaski jotee xaru coggal yi lañ doon xaar waaye nag jamono ji xaru coggal yi bëriwul ñu bari gisuñu ay xaru coggal ñi nga xam ne am sàmm te dëkk ca Mali ak ca Mauritanie ñoom ren jii dañoo zappe Dakar moo tax askan wi nga xam ne ñoo nekk Dakar dañoo sonn ba maara de tali est-ce que góorgóorlu yi danañu tabaski ginnaaw nag bi ñu gisul xaru la ba pare dund gaa ngi nii dund gaa ngi nii dafa seer ba maara de tali njëg yi lépp a seer yéen a kaay gi de la quotidien ñu koy fekk fa Aminata Assom Diatta ministre du commerce moom nag dal na ci kaw Ousmane Sonko nee na jamono ji jot na sënkama ñu daal di jàmmarloo ak Ousmane Sonko ndax nit ko te nag moom Sonko mii ko génne ci rebelle yi jëm ko faa génne nag dina jafe loola yéen a kaay gi ci xalim ak Assane Sambo nee na ñi nga xam ne ñooy homme politique yi maanaam dañuy fowee li nga xam ne mooy safara naam Ousmane Sonko nee na Macky Sall dafa am problème ak waa Casamance waaye ñaata yoon lañ wax Ousmane Sonko rebelle la te nag li nga xam ne moo jaaxal Assane Sambo nee na ñi nga xam ne ñooy way politique yi dañuy wax ay giraawaal yi waaye nag dara du leen ci fekk yéen a kaay la nee na lu jëm ci wàllum campagne électorale bi maanaam administration bu Sénégal du dem céng du dikk mbay laar dem cénga du dikk mbay laara administration bi ndax ñi nga xam ne ñooy liggéeyee ci administration bu Sénégal ñoom ñëpp bu campagne ñëwee élection dañuy tëj seeni bureau du ñu ubbi seeni bureau dara du dem dara du dem dara du dikk loole nag maanaam baaxul ci réew mi ba tey ci biir journal bi ñi nga xam ne nag ñooy way politique yi maanaam wuti seeni nervi traitu nervi yi traitu nervi yi jamono ji nga xam ne daal nervi yi dañuy am xaalis dikk na nemm bu campagne jotee yéen kaay gi de la témoin nee na en tout cas daal Ousmane Sonko Bissau ca Umar Sissoco Ambalo ñoom ñaar waxtaan nañ lu jëm ci wàllum situation politique ca réew moomee di Guinée Bissau waaye tamit waxtaan nañ lu jëm ci wàllum situation politique ci réew mi di Sénégal waaye tamit waxtaan nañ lu jëm ci wàllum ay projet yu nganda-nganda e e nga xam ne jamono ji njiitu réewum Guinée Bissau di Umaro Sissoco moo ko jiite yéene kaay gi de ne nee na Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké ak Cheikh Omar ñaar ñii sori wuñu liberté provisoire maanaam daal sori wuñ ñu may leen ab bàyyam ndégg niku ñu dem tabaskee ji seen i kër Cheikh Abdou Bara Dolly ak Cheikh Omar Diagne yéene kaay gi nee na nag ki nga xam ne mooy Cheikh Abdou Bara Dolly moom nag bi mu jàkkaarloo ak juge bi jéggalu na bu baax a baax ki nga xam ne nag mooy Macky Sall bi ñu ko laajee na ko waa yow Cheikh bi yow suuf si nga doon wax moom jan xeetu suuf la nee na suuf si nga xam ne moo nekk dante ñu koy pasar pasaree ak suuf si nga xam ne moo nekk Lat Joor nee na suuf soosu la doon ñu ne ko li nga wax moom ak lii moom moom est-ce nag am na benn